mooy mooy li nga xamante ne yéen koy def alors Boubacar euh, euh, aujourd'hui on parle peut-être de de l'immigration clandestine gaal gaal bu suux parce que bu ñu comprendre mooy gaal bu ndaw boo xamante ne dafay yàpp ay nit yóbbu leen ci gaal bu mag bi pour mu jàllale leen finalement d'après certaines informations dañu dañu dañu wàññeeku ba ñëw teer ci waax yu wakaam ak lépp luñ ci wax mais non euh, aujourd'hui Dakhla mi ngi fii Euh, Nicaragua mi ngi fii amaana bokkul ak lu ñuy gis ñun ci suñu côté yi mais suñu ay ndaw ñooy aw ci bunt yooyu ba jàll avec tous les conséquences yi nga xamante ne dañu koy dañu koy jànkonte yan information nga ci am aujourd'hui et aussi est-ce que la surveillance des bu ñuy wax muy marine nationale muy Frontex liggéey bi ñu ngi koy def comme nu mu wee ba tax suñu ndaw yi duñu mën a dem bay jànkonte jafe-jafe yooyu waaw boo contextualisé tout à l'heure nous avons parlé de mondialisation des flux migratoires oui. toutes les régions du monde sont soit concernées par soit le transit le départ le transit et l'accueil de ces migrants au profit de plus en plus diversifié wax na ko sànq lépp gi ci ku jàng ngi ci ku jàngule gi ci xale ngi ci jigéen na ngi ci on parle même de féminisation des flux migratoires avec euh, quarante huit virgule six pour cent des migrations internationales moom la famille di occupé pour cent dans les pays développés te amuñu aucune protection suffisante en termes de international ñu ngi leen di violer ñu ngi leen di toroxal ñu ngi leen di def lu nekk gisoo gaal yi souvent nga dégg jigéen xale yu ànd sax ëmb seen i doom euh, tey migration di dévoiler ay aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité muy développer des problématiques de paix de sécurité d' intégrité et de dignité humaine tey jii émigration euh, clandestine wax nga la wax nga désert wax nga Nicaragua oui foofu rek déjà la fa nekk rek doy na waar parce que Europe bi mu formé ce projet parce que tey le monde ne circule pas c'est-à-dire que dañu nekk dans un contexte de mobilité mm. mais àddina bi circulé wul alors le fait que ça ne circule pas indi ces la là drame yi mooy embouteillage yi le monde dafa war a circuler ci loolu la nekk moo tax dëkk bu mel ni Sénégal li ñu doon xaar ci moom dafa bëri aujourd'hui il faut lancer l'initiative africaine pour un parallélisme des réponses ci ngeen di poser problématique yi ngeen di wax yépp les visas la réciprocité yeneen yeneen yeneen ak yeneen mais dafa am fu ñu xot les dirigeants africains c'est sûr au développement ba tax kenn du wax c'est un instrument de politique internationale tey soo demee xoolee la migration de sûreté pour seen morosité nit ñi di dee moo leen arrangé parce que les bailleurs vont venir alors le Frontex va venir parce que Frontex li ko tax a jóg c'est l'Europe gérer ces flux en dehors de l'Europe dafa am ñu ciy dund en fait. mais mais mais mais projet de l'Union européenne Kaay Saïd non dinaa ci yéen soit dafa xëy suba te attaqué immigré yi fekk na am na lu mu soxla xaalis la soxla mu toog ba si àgg loolu discours boobu la di le le le le dirigeant européen yi bëggoon bëggoon mu jóge ci un un un africain qui parle de question identitaire ba naan dañuy remplacer le monde arabe ak wax lu kenn xamul gars yi ne lii lañ soxloo dem seeti ko. Mhm. daaw il y un mois le le ministre de l'intérieur français ñëw jox ko vingt six millions d'euros mu xeeb ko. Mhm. nii leen eh man lii taxul ma leen di garder seen frontière Union européenne ñëw song ak un milliard d'euros mu d'accord Paul Kagame gis nga cent vingt millions d'euros cent vingt millions de de de de livres sterling yu ngeen ko jox mu ne externalisation de donc ñoom ñoom loolu loolu moo tax a jóg maintenant euh, le Frontex ci boppam. ñoom xam nañ ni c'est pas efficace moo tax quand on veut camper le débat sur surveillance des frontières on fausse le débat. xam nga li tax ça ne peut pas être efficace le débat c'est pas surveiller les frontières c'est pas surveiller les côtes nit ñi mënoo leen téye il faut s'attaquer à la cause principale comme ni mu ko waxee l'État joue sa mission régalienne. xam naa pour mettre à tout le monde à l'aise dama ni. loolu laa monsieur discours boobu laa monsieur nous sommes tous responsables mais la grande responsabilité incombe à l'État parce que ci état bi la ñuy xaar ay solution moom moom moom c'est-à-dire mais mais Boubacar mënuñu wax quand même que ne l'État euh, euh, deful ay ay efforts par rapport ak cette question migratoire. waaw dafa waaw d'accord comme daf na ay efforts man man je prends acte mais xam nga lu ma bëgg man mais am na ci xam nga lu ma bëgg tey mm-hmm. tey la wàllu gën a ay kon qu'on fasse l'état des lieux le bilan c'est l'heure du bilan parce que quand un travail n'est pas évalué on ne pas aller en efficacité kon lan lañ fi def Sénégal parce que boo xoolee boo jëlee Sénégal nga jël da ngay jël nga nga kii parce que ay nit ñi ñoo bokk Sénégal waaye tamit bu dëgg jotee nañ ko wax ay nitu xel ñoo fi nekk. 2012 ba tey rek yoo xam ne demuñu au fond peut-être. non dafa nànk rek 2012 ba tey politique bi xaalis moo dugg au Sénégal kon xoolal fi réew mi tey tey tey am na yokkute wala amul yokkute. ñu évaluer. oui bu ñu demee ba dans un pays ñëpp màbb hein le sociologue est là nit ñi dem nañ ba gëmatuñ ni mën nañ fi tekk mais c'est extrêmement grave quand la jeunesse d'un pays se rue comme ça xale yi wax Espagne je suis d'accord avec vous c'est quoi notre dignité africaine ñun ñu taxaw xay wax ci Espagne di di ci di woy moi j'ai eu honte te ñoom ñëpp dañ leen di delloosi ñu jàpp africains yi di leen nax naan leen migration circulaire alors